mais M23 boobu du am. Wade bu kon neexoon mu ne kenn du fi manifester. mais da leen ne bàyyi manifester. Mhm. parrainage bi gars yi def assemblée lan la Macky def. Colobane la dem tëji. Mhm. gars yi yegguñ ba léegi nii ci buntu. daay mhm. dañ wax M23 lañ doon xeex yëpp. tey la gën a jalaajoo. kon kay nañ bu dee li wax dëgg la ci ñoom. ñoo ne di dëgg naam <laughs> jëlal. bureau bureau soo nekk fi. man de dinaa dem. revue de titre laa defoon ak Aïssatou Diop Fall TFM mhm. ne ko tey ay plastique laa maye différence bi rek mooy keroog plastique laa sol ay tig tig waaw waaye yaa nga ca biir maa nga woon M23 mhm. mhm. bundu assemblée tey mocassin maa nga Grand Yoff M2D laa jëm de man dew ma ay M23 de M2D ndax ñooñu ñooy xeex lañ doon xeex bi fi Abdoulaye nekkee dañu waxante dëgg waaye gémmiñ gi waxul dëgg wax safaan wax ok waaye Amar yaa ko yaa ko tey yaa ko sëy waay man si Siré nañu taal mais Siré xam nga talaatay Macron dafa amoon uh-huh. mais gis nga àllarbaay ala xam boo sàgganee dana uh-huh. waaw ku ci nekk da ngaa samp seen dënn wala M2D aslem Grand Yoff M23 place de la nation bu fa kenn dem bu leen dem bu kenn dem place de la nation <laughs> bu fa kenn kenn dem <laughs> di dëgg la informé leen eh ñii lañ doon sensibiliser y a dix ans. boobu TFM laa nekkoon. ma naan nit ñi génn leen dem leen nañ xee xoolal génn leen Grand Yoff. yaa ko tey waa Grand Yoff. bu fi kenn dem place de la nation. ñoom nag dinañ fa dem moom ñoom parce que force ak APR ak yooyu. pour ba pare boo sàggee nañ mobiliser de. Mburok Sow import export. Mburok pour wane ne le peuple est là. Mm. peuple bi nekkuñ fa. peuple jënd wéy yaa ko tey waay wal fukk quotidien ñëw ak ci gaa yaa ngi ni daas nga nay ah, xeer wi kan la ah non kaba borom xeer sam papa la kaba gi ñas kumba abdallah kaba yor kaba la yor dégg na journée boobu ni mu ni mu ni mu ni mu doyee woon waar waaye enjeu mobilisation tamit si ré am na ca de mais vox populi ñëw ak ñun ci xoola gis nga la résurrection de l'esprit mhm. état d'esprit bi nga waxoon mhm. daal dinay dikkaat dix ans après mhm. waaye la xew ca faajaal doy na waar sa sam bi am ko bëggoon a hmm? jam na ko ci ndodd dagg na loxoom waa mii waa lii lan la boo jógee sowaal faajaal nga ciy teg dégg loolu teg ca Samba teg ci film laa boo ne nii góos Diofior nii ndangaan sàmm ak ko ma ko maîtriser. faa jàll la xewee. mi mi voilà Sénégal nag fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg dëgg moom euh, Siré. ah léegi de ku ci dul xalaat ëllëg lu la neex defal l'ex président mauritanien Ould Abdelaziz inculpé. ku ci dul xalaat ëllëg lu la neex defal dégg nga Sénégal nag léegi ay doneem daal jàllaa ñoo bitim réew ñuy contrôler yooyu léegi ñin la dégg waaw foofu ne foofu ndaxee gis nga gis nga euh, xam nga président journal bi bind laa wax de. waaw waaw man sama commentaire yëpp na fële ci M23. voilà léegi data center bi lañ doon inauguré. voilà dama la bëgg a may rek. Euh, xam nga président nee na ci journal bu tudd 24 heures. waaw le data center de Diamniadio est une grande révolution pour notre souveraineté digitale. Siré Siré nga koy anglais. Oh, ah waaw oh, waaw pour notre pour notre souveraineté. waaw waaw moom ma bëgg ko wax ne président yaa ko tey waaye waaye xam nga ni <laughs> souveraineté nationale euh, na xoolal data center bi. waaw. Huawei Chine. waaw moo ko tabax. te ñëpp xam nañu voilà euh, ñëpp xam nañu Chine méthode yi muy tabaxee gis nga siège Union africaine ñoom ñoo ko tabax ñoom bu ñu lay tabaxal defaral la. dugal nañ ci ay affaires yoo xam ni euh, dison ñu ngi lay espionné ba pare ñun suñu données yi. maîtriser wuñ ko c'est-à-dire ci contrôle orange de nekk c'est-à-dire ñun on est entre l'enclume de la Chine. et le marteau de la France tey jii suñu données yëpp ñun dafa mel ni bâtiment bi nañu moom encore que euh. li ci am solo du ci bâtiment bi yokku gi données yi la. parce que kon ba léegi maîtriser wuñ ko la. géré wuñu dara te lépp loo fi wax fii ci Sénégal. waaw bala nga cee jot sax yow mi waa Sénégal. Chine jot ci France jot ci ñu mën a évaluer. ah non non non. lii kon amul sax Sud Quotidien ñëw ak ñun fukki atu yàlla M23. Mm-hmm. gis nga xat-xat la ñu nekk ba tey ëttu politique bi la classe politique. Mm-hmm. ba léegi ci xat-xat la ñu ne. source a ñëw ak ñun ci lii xeeñ sax moo neexul lii xeeñ ci mbir mi. Mm-hmm. parce que waa Grand Yoff nee nañ seen terrain bi nga xam ne moom la waa MDD jël xadara lañ fay def bërëbu jaamukaay yàlla la. la ñuy bañ àjjuma du ñu bàyyi ay nit ñu tax ñëw di fa manifester. Mm-hmm. loolu ñoom la Badiane ñooy wax de dégg nga loolu yamuñ ca ñoom itam jàpp nañ ba tey côté nguur gi mm-hmm. ne gis nga kii di Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko Guy Marius Sagna mais du ñu nangu ñuy récupérer jour 23 juin. 23 juin bi non. <laughs> duñ ko mm. bi nag leader yaa ngi nii. dañuy daje. suba nag la ñuy daje pour xool nu ñu waxtaanee ci liste unique ak yooyu uy ma. Mm-hmm. xoolal opposition bi. rek. Mm. opposition bi. Malick Gakou woote na ko ca Kaolack mais day leen xool fi ñuy mujjee. makee leen di tas. <laughs> tous tasar. tous tasar. ñoo raw tous tasar. <laughs> duñu tous mafia tous tasar. duñ tous parce que ci tas lañ jëm mooy tous tasar opposition bi opposition tous tasar. la soxla yéen a kaay inauguration maa ngi nii ah data center waaw kay national de Diamniadio Sénégal léegi ah oui ah oui oui foofu oui yaa ko tey waay waaw kay dégg nga waaw mais Siré waaw mais M23 léegi lan moo fa des dara douze millions yu ñu sàcc ci Sonatel moom ñoom nañ ko lijjanti réalisation d'une série télévisée mooy doom seen série bi ma am na hmm. doole di mbaa ñëwu fi rek série télévisée <laughs> dama ne M23 lan moo fa des. xanaa weenu nag bu ñu bëgg a rat. <laughs> ah def ko def ko def ko rant di ko di ko di ko rat rek. ween bi kay war naa bàyyi. waaw ba léegi. Eh, nag la moo tax ci alerte. journal bi nee na dara desu fa. dara desatu fa. ràcc na ràcc ah! parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon di ko animé mais majorité bi ñoo gagné woon Ablaye mais ñooñu ñoo dem tey gouverner ñenn ñi desoon a kës néew dem nañ ak transhumance yi leen fekki dara desatu fa maanaam lañ doon kaas boobee ba léegi benn mooy troisième mandat ñaar recul démocratique ñett immixtion famille présidentielle dans les affaires de l'État ñeent euh, nos ressources là mhm. la malgouvernance ci suñu ressources financières mhm. pétrolières gazières mhm. <laughs> liberté d'expression waxaale mooy mbiram yooyu yëpp ñu ngi fi dëju waaw yow man yi waaw Fouta Tampe ngi nii moom li mu tuxu dafa bari de ñoom de ah moom li mu tuxu ci boppam moo bari waaye xam nga kan mooy ree waa PDS ñoo naan ceex ceex may ree waaw parce que Tafsir Thioye porte-parole PDS nee na mais lii waree na ne ñii dañ doon dañ doon dañ dañ dañ dañ doon nax sénégalais sur le plan démocratique vraiment on regrette eh, mettre eh, quand même. et eh, m ñii dañoo dañoo dañ doon berné dañoo nax sénégalais yi lii rek wane na ko tey. Mhm. waa ñii bu ñu demee place de l'Obélisque lan lañ fay wax. <laughs> mais d'ailleurs euh, d'ailleurs lay wax Wade euh, fan yële passé at yële passé bi mu defee voyage ñëw Sénégal booy ah. booy topp ko dar ko maam baal ñu dañoo jiw mu ni yéenoo ko tey. <laughs> dégg nga Thierno Bocoum ci biir journal bi nee na. <laughs> daa toog ba waa M23 yónnee ko invitation mu ne leen ñëwuma. jeex na bokkum waaw. borom Agir xam nga matadi. moo leen wax de weesuwul yow li taxoon ñu doon xeex yëpp mi ngi fi ba léegi ni le nga ne pat pataaral ak moom bu dul dara sax ñi ci dee rek war naa tax ba waa M23 gi bon vraiment xool xoolaat ñoom seen bopp. Mhm. dañ waxante dëgg. lañ doon tere yëpp mi ngi fi laa la wax dara jugu fi dara Dakar Times ñëw ñun ci. ci donnée yi man laay ñëw moom. données yii mi ngi nii Diamniadio Macky Sall daal li mu xam le mooy le data center de Diamniadio est une grande révolution pour notre souveraineté digitale. yaa ko tey waay. yaa ko tey waay Macky yaa ko tey waay ci El Hadj Ndiaye. Mm-hmm. ah moom song na sama patron bi nag. wax <laughs> sa patron taay neexaw ñu de. Ah! en tout cas day doy na waar. moom daal nee daal ak ay rakam daal. 2018 <laughs> ba léegi ñu ngi navigué sàcc seen i fréquence. Eh, porte na plainte ci procureur dafa seenewul dellu ginnaaw te bu ko kenn jubóoleeg yu. ndaka yu wax eh, El Hadj. mu ne ko yu. Eh, yu man nag mbay laa mu ñëw dox seen diggante. Ah mbay fa mu dox quoi. te El Hadj Ngaye na moom moo fabriqué Youssou Ndour. moo ko créé. créé ko jàppale ko. dégg waaye li Youssou Ndour débauché tey 2STV bi. waaw. Hmm. mais ñooñu mais mais ñooñu boo leen génnee TFM El Hadj Ngaye dara dootu fa des. waaw mais Youssou Ndour bàyyi El Hadj Ndiaye waaye ay Youssou Ndour waaw Youssou Ndour kilifa kenn mën na koo yuuxu. non grand mais dañ koy wëlis quoi ay yuuxu bàyyi El Hadj Ndiaye waaye. télé yëpp la. mais El Hadj Ndiaye mais El Hadj mu doon def. mais gone ko jigéen gi tey fii la jógee. waaw waaw nga de foofu la jógee woon dem ak tey jóge ba ñëwaat. ah daal retour la def. Euh, aller retour ah deux heures lañ ne woon. waaw. Ah. dem TFM dellu si waat. oh. mais yu bàyyil El Hadj Ndiaye waaye mais El Hadj Ndiaye bàyyil yu waaye. Ah. mu ni. ki doon def si waat foofu la nekk. Oh. mais mais yow. Ah. capitaine Touré lan la wax El Hadj. ok non Touré naa paas. <laughs> ak yéen yéen a kaay ñëwoon ci. doo si muus non non non. doo si barkeel rek non non Touré la kii naa moom waxal na boppam. dégg nga waa mais waa léegi jour 23 juin. mbirum doon na ndela. Mhm. léegi kan mooy borom. le peuple souverain. le souverain. da leen buggaan gay dañuy waxoon ne leen boo leen yaakaaree ne yéen politiciens yéen a tax askan wi génn da ngeen nax seen bopp. dëgg te loolu moom am. le peuple est souverain. oui. li xew barki démb fii leer wane na ko. oui le 3 mars. waaw ah. ingrédients yi daje. Mm-hmm. ñoo bari. ingrédients yi daje ci dënnu sénégalais. Mm-hmm. ñoo bari. am na ñoo xam ne bi ñuy génn di dem tayuñu ko. Mm. ak ñoo xam ne nag benn bii moo leen taxoon a jóg Sonko kenn du ko sànq ñeneen ñi ne nag lu ëpp nag tuuru ñeneen ñi ne man moom samay problème personnel laay dem lijjanti yeeg Macky. Mm-hmm. déggoo ma de. lekkuma naanuma ma lekkuma naanuma corona ga rey nañu tëj nañu. ñeneen ñi ne nag lii moom occasion aw ma xëy ñeneen ñi ne lii moom occasion la Macky mi il faut ñu dem defante ji ak moom léegi nag wuy ma mbir ma daje. cocktail cocktail explosion moo jur way wi yaa ko tey yaa yaa ko tey waay Youssou gis nga ni la El Hadj Faye bëggee <laughs> yaa ko tey waay El Hadj Faye gis nga ni la Youssou bëggee yaa ko tey waay <laughs> waay waay si c'est que maire ci dialogue bi mhm. Macky ak opposition bi dañoo d'accord woon ci tous les lépp loo xam ne am nañ ko accord ci dialogue bi rek. Mhm. danañu ko appliqué ñaari cas yi ne waaw. looloo waraloon ñu toog ci taabal. waa léegi le suffrage universel direct l' élection du maire au suffrage universel direct boobu bokk na ci accord yi. Benoît Sambou ak Cheikh Sarr ñoo fa toogaloon la majorité présidentielle mais ñooñu d' accord nañ mais am na ñu nekk ci biir majorité bi nag dañoo bëgg ma Macky dellu ginnaaw waaw waaw foofa naa ngi nii. Moussa Mbaye ngi nii yéen waa Géeja waaye koo leen bëgg rek dem toog. Mm-hmm. amul ay ñetti conseil dugg ci biir saal rek wóor ñoom sentir nañ ne buñ ko appliqué musiba mbaaba ko ma mën na leen dal te mais Macky tamit fekk daa mel ku leen bëgg a fekk si yóbbul affaire bi assemblée national deful dara mu ngi toog ne pat boobee ba léegi nii te buñ demee ba le 23 juillet kenn 6 mois. waaw dootul mën a modifier te dara. Macky looy xaar pour modifier. Ah, yaa ko tey waaye Macky. Mm. yaa tey waay. Mm. moom ay mbiram moom. laas jarul doon sa doom de laas yéen kay ñëw gis nga xeexu mobilisation mais coow li mooy Alioune Tine jiite woon M23 la nit ñi déggul bi yoon. Mm-hmm. ah Mbambak riir li mu nekkee woon de mille deux mille deux mille onze. dégg ba jëloon dëkku coow laa ngi fi mooy troisième mandat ak tojaange yi nga xam ne. moom la nguuru Macky gi nekke lii la waa m di wax task force APR nag disqualifié nañ Sonko Guy Marius Sagna ak Bougane gi Dany nee nañ leen yéen ñett yéen bokkoo leen. ñetti doomu benn naar yéen bokkoo leen ci. <laughs> dégg dañuy segg ana ku ko jur ana kuy doonu. Hmm. mi ngi ni Abdoulaye Wade nag ak waa PDS ñoom seen mairie yi ñu pertoon yëpp. élection locale yi di ñëw dañ koo bëgg a récupérer. dañ ko a Sénégal jëm kanam dégg nga loolu. eh mooy ah xoolal mi ngi nii M23 maa ngi nii Abdoulaye Wade opposition bi terrain HLM dégg nga loolu mouvance présidentielle bee ngi nee nañ Sonko Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany duñ nangu mukk ngeen def récupération waaye yéen waroo leen a wax M23 la ko taxoon a jugan fii. ba léegi ba léegi. wala waaw ah, kay waaye foofu del wax ci micro bi muy leer mm. <laughs> de bàyyi leen komos bi dee leen wax da nga naan waaw ah, wax non lu koy yées euh, euh, da nga naan wala lu ko yées d'ailleurs Birahim mi ngi ñuy def benn confidence nee na ah. le concept de M23 waaw président Macky moo ko génne sax dégg nga loolu ba pare ñëw ñu demee bañ jox ko lenge gis nga la ci am quoi en public Macky Sall fi ay mbiram njëkkee leen def rek mooy assise yi mm-hmm. ba mu pare dañoo njëkk a wax ne non signé ko ñu dem ba ci biir Abdou Mbow ne non il a signé avec des réserves. jël li ma ci soxla. ñu dem ba ci déedéet ñu dem ba biir mu créé CNRI ak ak Amadou Matar Mbow. Mm-hmm. liggéey boo xam ne la ca dem jege na milliard. Mm-hmm. liggéey ay année pare teg ma ki man lu ma neex laa ciy jël. ba pare gars yi gars yi moom ba pare gars yi gars yi ko ba ci miir bi mu ni finalement c'est nii la la Bible ni le Coran waaye <laughs> Macky yaa ko tey waay <laughs> Macky yaa ko tey waay. gis nga xoolal xam nga kay dañ koo mbëkk bu daganoon. déedéet yow. moo ko tey wala tey. non ñu koy jaajëfal laa baax El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen ñi nga xam bokkal plateau bi ma si profité.